aduna heli wali jali so wonamo yeli dañata ko ñaami so wonamo yeli dañata dole ndaare aduna koye funti foyne a gore jam fo heewi e dow bonde en boni ndaare tuna funti fuyni

barki cheikh ahmadou bamba dañuy ñaxé pour taxawal fi ay millions dekkal suñu nday ak suñu bay suñu may ak suñu rak est dekkal len, dekkal len. dëkkal ñu ñew fi tay ñu toj suñu alal pour lan diko jox diko nangu ci ay sénégalais pour jox ay sénégalais grand lii c'est c'est inadmissible li li luñu wara dawla li yaram sax ab julit bu ko timé ñuko ko lo li mu def ko ah non war sa yaram war na daw baa ngi nekk ak sama njaboot nekk naa fi lu mu néew néew lu toll daal maanaa ñaari fukk njaboot lu mu néew néew aw ma feneen fu may mun a nekk ñoom daanal na miir bi des na daal maanaa benn bâtiment bi kese tey su fekkee génn naa fi njabootu bi aw ma fenn fu may dem kanaa may jël sama bagage yi maanaam ma génn ko ci biti puis loolu si boppan tey fu mu nekke fi ma toll noo bagage yi mënutuma saa maanaa jël bagage yi damay jàpp ci yàlla génn njabootu bi daal maanaa ñu nekk ci mbedda bi bàyyi bagage bi après ba yàlla jëlee bakkan yi waaye aw ma leneen li mooy mën a def ci loolu. musul bindi fii oh non dara musul bindi fii dara musul ma musul bindi fii dara musul ma dara ñëw bi yëpp daal maanaa tey la tey mooy ñëw man man noom dama tabax daal maanaa ba ma kuule ah ñoom neen daal maanaa ma génn njaboot yi après ñu daanal maa ko man wax dëgg yàlla daal maanaa mun naa ma génn njaboot yi loolu d'accord naa ko Eh, kula wu fudole lu mula la da lola wai no njabo tu njaboot munu male ki leen munu bagage mënuma génni lima inyan may ñaan ci ngir yàlla ak yonent ñu jàppale ma daal ñu bàyyi sama njabo tu kër gi aw ma kene au ma fima idem lolo loolu mooy li may ñaan ala ngir yàlla ak ligante liggante ake ak ake moronga tang nan ko si son suñu roko borom rek waaw at yéen a ngi a fii trois ans bi mat at wa ñetti at ñoom dañu xëy ñëw. waaw nii daal la ñu bettee dañoo jékki-jékki rek gis ñuy toj kese <coughs> waaw nii lañ ci am. ñu ngi ñaan nag ngir yàlla yërëm tëbi nañu bàyyi fii ñu toog amuñu fu ñu dem amuñu fu ñu nekk waaw suñu génnee fii si àll bi lañuy nekk ñu ngi yore suñuy njaboot waaw ñu ngi koy ñaan na si ngir yàlla yërëm tëbi war a suuri nañu bàyyi fii. borom kër gi mag la man mii jabaram laa. te weerul sax fan yi yëpp weerut. lekkut naanut waaw. démb tension am dafa ya, monté ba ñu woo docteur am démb tension am dafa ni dong ñu tak febaram bi yok mu ngi ni lañ leen di ñaan nak ngir sayidina Mouhamed ngeen baal ñu ngeen bàyyi ñu fi ni ñi daaneel ni sama nak ko mom man maa yoon liggéey bi lepp mais wax dëgg yàlla mënu maa jàkkaarloo bi maa ngi ko woon ginnaaw parce que li rafetu ci xol quoi boko xolé ba amee kar da ngay dé té bo dé dañ japp da xaru mais fekk nakaru xol mo ray nit ñi ñun daal vraiment ñun daal dañoo war a xam ne président ma Sall na nga gëstu waa Thiès parce que ñii nga xam ne ñoo dëkk Mbour kat heure bu ne jug nañu man sama xol laa jeex sax maa wax ñii def ay prêt def lu ne ñëw ci banque yi ñëwul lépp tabax seen kër ba def lu kar ba dëkk ñu ñëw rajaxe ko Macky Sall na nga gëstu na nga gëstu waa Thiès ñu nekk Mbour kat recensé ñëpp ngir yàlla nga wutal foo leen dëkk da démanger leen parce que dañu am ci yow yaakaar ba fala ci réew mi kër gi sama dooma ko moom di góorgóorlu ndax bëgg ma fee dugal maak ak njabootam nar koo def nii di góorgóorlu day faraatu rek Macky Sall ñu ngi lay ñaan ci barke Seydina Mohamed nga xool lii xam nga ne lii metti na metti na torop ba fan yi yëpp ñu ngi ci lii barki démb rek la doon kuule bëgg ma fee dugal ak njabootam waaye lii nag yàlla bu ko yàlla ak yonent bi seetaan jam fo heewi e dow golle bonde enga koni dare tena futi fuini